asalaamaaleykum mbokku téléspectateurs yi tey nag ci seen émission conseil santé dañoo am mbégte am honneur dalal ki nga xamante ne nii doomu sénégalais la waaye moom dafa am tawféexu inventé li ñuy wax Lumigène malaria di benn gànnaay bu am solo boo nga xamante ne nii dafa jëm ci xeex feebaru sibiru ñu ngi fii nag ci laboratoire parasitologie mycologie ci hôpital Aristide Le Dantec fas yéene sëkk waxtaan ak ki nga xamante ne nii moo di le professeur da Ndiaye nekk itam euh, chef de service su laboratoire bi de. balaa ñuy dugg ci sujet bi dañ leen di xamale tuuti rek ak ki nga xamante ne nii mooy suñu gan tey di le professeur da Ndiaye. gani àddina si diwaanu Pikine professeur Daouda Ndiaye mi nga xam ne tey jii moo nekk gan émission conseil santé njàngam mi yépp moo ngi ko amale si école publique bi foofu si diwaanu Pikine ba ni muy amee bac si lycée Seydina Limamou Laye atum amoon yéene dimbali ñi nga xamante ni bi ñoom la dëkkaloon te feebar bii di sibbiru sonaloon leen si la duggee si fac médecine bu université Cheikh Anta Diop bu ndakaaru ba ni muy jotee si doctorat am atum 2000 spécialisé wu en parasitologie maanaam ñi nga xam ne ñooy saytu indi doomi jàngoro yi. mu daal def des yam si fac science ginnaaw bala dem si internat des hôpitaux en ba génn fa si atum 2001 at moomu sax moom dong moo si génn. ak njàppandal ak bourse bi nga xam ne moo lëkkale woon université bu Harvard bu États-Unis ak université bu Ndakaaru si la demee si foofulee États-Unis yeggale njàngam waroon faa def ñeenti weer rek waaye ak xarañam moo waral boobale université daat ko fi téye ba mu def beneen doctorat en science. si atum 2004 université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru nekk professeur assistant mu di nangu daal di ñëwaat si réew mi. si atum 2007 la am doctorat boobu nga xam ne moom loon wut si université bu Harvard nekk si États-Unis si at moom ba léegi di 2007 si la defee concours bi nga xam ne moo di CAMES dugg si njàngale mu kawe mi atum mu bindu si concours agrégation bi daat koy am si atum professeur Daouda Ndiaye jaar na si diwaanu France ndax jàngee na si université Paris 6 weeru juillet atum nag si la jotee si li nga xamante ni képp ku nekk université tey bëgg nga koo kii di professeur Daouda Ndiaye moo sos machine bii nga xamante ne bii moom la ñuy saytoo doomu jàngoro jii di sibiru ñu duppee ko élimination malaria maanaam faagaagal li nga xamante ne bii moo indi doomu jàngoro jooju di sibiru kon soxna Diarra Seck sa gana ngoog. docteur muy sa domaine léegi ñu ñëw ci maanaam doomu jàngoro sibiru bi comme jàng ko ay ndax mën nga ñoo wax doomu jàngoro boobu mooy kenn doomu jàngoro bi ci misaal lu doy waar la. lu am doole la ci xeex lu tuuti la lu ñu te gis nu ñu koy wax parasite surtout nu ñuy wax jom boo gisee li tax ñu defal tubaab defal microscope wala ñuy wax test de si rapide pour mën ne la gisee kenn mënu ko gis si bët euh, parasite bu doy waar la te day dund ci wàllu ci deret lay dund te buy dund ci deret day toj deret ji day rey deret ji te deret mooy tax li tax ñu neen euh, euh, nit ji am ñoom ñooy transporter ñu oxygène ba tax lépp di di di mën a ravitaay woo léegi bu dundee ci bu duggee ci doom ci deret ji rek parce que bu jaaree ci ci foie bi ñëw ba ci deret ji fu mu dugg ci deret da koy toj imagine ta chaque jour mu toj benn deret wala mu toj fukki deret bu dee bu bàyyee bu yàggee deret ji doo fi fermati loolu tax muy lor loolu tax sibiru dangereux so lor boobu muy lor parce que deret ji lay toj te ku amatul mooy loolu te looloo tax sibiru doy waar te nag doy boobu mooy li ko indi aussi mooy xeex ko dafa difficile parce que dafa mën a làqatu dafa mën a làqatu ci lu ànd yu bëri d'abord ki ko ki la koy jox ki la koy jox ab yoo la ci ci ci yoo lay làqatu pour dugg ci nit yoo bay ko jox loo tax même boo déggee moustiquaire ñaan na si ni moustiquaire parce que moustiquaire bi mënul tax si buru bi laa nga laal mais yoo bi la ko indil lay lay élimine loolu mooy doomu donc moo tax soo ko amee sa yaram di tàng parce que fièvre de ngay am eh, yaram bi di metti bopp bi di metti parce que oxygène yi buy wàññeeku ak ak bi yooyu day lu nekk lay indi ci yaram bi loolu nag moo tax doomu jàngoro bi compliqué te boo ko jëlee moom nag ci doomu jàngoro bi ci boppam dafa lu ñuy wax ay gènes am na plus de juróomi junni gène juróomi junni ba ñenn ñi ñu naan juróom benn junni te gène bu ci nekk dafa lu muy indi ci lu mu foofu lu muy xeexee moo tax boo tey mënuñu am vaccin sur le palu parce que juróom benn junni yooyu bu ci nekk am na lu muy indi te pour ñu mën ko xeex il faut ñu am les déterminants du ki yu attaqué ci sang bi donc yooyu koy indi mooy am tax mu am doole moustique bi di la ko jox te moustique bi aussi fi muy dund ci ndox la ci yenn jëmtukaay yi ba mu tax muy dugg te képp ku nit munoo wax ne siburu mun laa dal amul ku mun na munul am siburu amul ku mënta lor du mag du xale du ndaw maintenant nag c'est vrai que xale yi lay gën a lor parce que am na lu ñuy wax xale amul euh, immunité pré wala amul prémunition c'est-à-dire que ay ba 5 ans xam nga foofu dara amul fa ci protection ñun mag ñi ñàkkul ne mus nañoo def sibiru bu ñu ko defaatee day fekk amoon nañ fi benn lu fi nekk dañ mën na ko xeex tuuti donc li tax lu lar lu bëri ci mag mais bu dee mag li ñuy wax les sujets neuf ku jógee France ku dëkk France 15 ans wala dëkk yu mel noonu ñëw fi yow xale bu ndaw bay am ci sibiru ku fi dëkki aussi. Euh, te doo jël jëmtukaay aussi nga nu la war aussi mooy loolu donc sibiru ci ci misaal mooy loolu doomu jàngoro bu doy waar la ci deret lay dund dalay jox ay fièvre wala wala ay yaram yu tàng ak leen bu yàggee mën na indi loraange lu naqaree faj la parce que an gène yi dafa bari te pour faj ko aussi dafa laaj ñu gis ko te gis ko aussi pour nga gis ko dafa lu ñu ay microscope wala test de diagnostic rapide donc loolu mooy ci misaal siburu te kenn en tout cas kenn mun wax na mënoo am kenn mun cee mucc lu dul nga protéger wu wala un jour ñu éliminer ko mais ñëpp la mën a dal. li nga xamante ne moo war a mën a xeex si bureau mm-hmm. eh, fi ñu toll nii am na ay test yu ñuy def ngir mën a xam ndax doomu jàngoro bi ngi nit ñi moo di ñuy wax test euh, euh, mm-hmm. nga ñëw indi ne mooy illumigène malaria mm-hmm. mën nga ñoo wax ci invention boobu noonu na la la dikkalee waaw loolu li ko waral euh, dama ci profité di sargal di féliciter programme Palu parce que liggéey bu rafet bi ñuy doxal te parce que ñun ñëpp ci lañ bokk ministère de la santé dafa am programme bu ñuy wax programme national de lutte contre le paludisme ñoom ñooy yor wàllu sibiru ñoom ñu ngi doxal seen liggéey bu rafet depuis at léegi ñoom nag pour ñu liggéey dafa am ñu wax les les partenaires partenaires ñun ci lañ bokk ñun les partenaires techniques ñooy ñi joxe yenn yenn information yi wala conseils yi ne leen def leen def leen ne la am leen di jàppale ci wàllu finance ak leneen ak leneen donc moo tax Sénégal depuis plusieurs années nga gis ñu xoolee doomu jàngoro bi lu mu doon bëree ci nit ñi bëreetu ko wàññeeku na lu bari bari bari en terme de prévalence parasitaire ay 45 50 ba lay ñu wax mu yees na ñaari pour cent donc mooy wàññeeku na léegi nag loolu bu amee parce que am na stratégie yu bëri yu programme bi di def aujourd'hui et j'en profite de cette cette ci lii ci pour wax féliciter ñu encourage ñu continuer la boo xoolee tey boo sibroo yooyu ngi wax microscope bi ak test de diagnostic bi doo ko fay do médicament bi lay faj aussi ñu wax ACT doo ko fay programme bi ak ses partenaires ñoo koy jàppale moustiquaires yi ngay dégg ñu ngi koy distribuer au niveau national à l'échelle yooyu aussi lu nga xam ne la c'est extrêmement important pour population ñu ci ñu koy utiliser di ci ne la parce que comme je dis si buru amul ku dul ñëpp lay ñëpp la mën a indi problème te ñëpp la mën a lor te aujourd'hui tant que amuñu vaccin wala tant que paludisme éliminé wuñ ko liy yoon ci li ko gën a aar moustiquaire dafa ci la bokk donc boo xoolee moo tax sud bi euh, ba léegi yooyu daf cee bari ci intervention yi am na moustiquaire yi comme ñëpp am na yeneen dañuy dem ba ci biir kër yi programme Palu day dem ba ci biir kër yi pour faj nit ñi te duñu fay fay faj euh, de dërëm maintenant on comme siburu dafa xeex bi dafa am doole ba tey ñu naan siburu ngi jeex doomu jàngoro bi day compliqué ñu gis ko donc dafa am lu ñuy wax ci kaw zone noor bi ay Richard Toll ay Dagana ay Saint-Louis yooyu pratiquement siburu jeex na fa ci centre bi nag ay Kaolack jëm ci suuf bay ñoom Kédougou Tamba euh, Vélingara Kolda Sédhiou sibru bi a fa am doole ba léegi donc foofu noonu doomu jëm jumtukaay yu ñuy wax bi wala test de diagnostic rapide ba léegi am nañ seen doole li ñuy régler moom ñu ngi fa mën nañu tax ñu gis gis doomu jàngoro bi et ñu faj ko normalement foofu y' a problème par rapport à sa donc soxlawuñu fa lu lu lu indi leneen lu nga xam ne dinañ kii ña ñàkkul nag loo indi lu bees day gën a am dooleel ci jumtukaay yooyu mais bu ñu jëlee ci kaw Sénégal nord bi nga xam ne prééminence moo fa doomu jàngoro bi pratiquement pour nga gis ko dafa jafe microscope yi nii wala test surveillance rapide yi ngay wax mënatuñ ko gis parce que ñoom dafa am limite fu ñu mënta egg te doomu jàngoro même bu dee benn la tant que gisuñu ko te par exemple bu ñu jëlee OMS daf naan la boo gisul doomu jàngoro bi waroo faj waroo jox médicament parce que dañu amul mais maintenant bu ñu amee en préémination comme zone nord bi foofu bu ñu utiliser yii mën nañ am problème te yenn saa bi xalaat na ne lii kat la. moo tax ma ne nag ak samay partenaire depuis plusieurs années nañu réfléchir ci joxe test ba nga xam ne war na mën régler problème boobu parce que plus muy tuuti plus muy compliqué et un pays bu demee ba am benn stade comme Sénégal macha allah ci Afrique nu mu ci liggéey ak ci àdduna dafa laaj muy wut leneen lu dul li ñu li ñuy di pour pour pour ñu kii parce que tant que boobu gisuñu ko dañ naan sibru jeex na ko jeexul boobu noonu mun na law bu ndaw boobu mooy law benn mooy law ba indiwaat ñeneen sibru kon ñu naan mais kon sibru jeexoon na kat ñëwaat na fekk en fait moo tax ñun comme ñun dañu former li ñu wax ci génomique biologie moléculaire mooy dañu jàng ci dugg ba ci biir cellule ci biir yaram ci biir euh, nit ki euh, parasite bi ci biir bi ñu wax cellule ñu dugg ci biir cellule bi ñu xam lan moo ko lan moo ko defar ñu wax ADN ñu gis na loolu rek moo mën a tax ñu mën a détecter yoomu jàngoro yaarooyu donc ñun mais euh, technologie yooyu am nañ ko fii à Université de Dakar ci laboratoire bi parasito bu daan teg comme am nañ ko aussi ci yeneen dëkk yi comme am nañ ko yeneen ci yeneen euh, même labo yi ci yenn dakaar yi mais bariwul mais li leer mooy bu ñuy génnee dakaaru dem ci dëkku taax yi euh, dëkk ci bit kaw yi ni ma ko euh, périphérie bi amuñu loolu jumtukaay parce que jumtukaay yi dafa laaj xaalis bu baree bari boo nga xam ne état sax en général c'est pas parce que état jënd munu ko jënd mais du priorité pour état donc partenaires yi ci biti ñooñu ak recherche institution de recherche yi ñooñu ciy jàppale ñu am ko et puis dafa laaj jàng bu bari bu nga xam ne lu bari bari la ci jàng te ñoo ñu koy liggéey bariwuñ ci Sénégal bariwuñ ci Afrique matuñu fukk suñ ci matee ci la yam ci nga xam ne loolu rek la ñu xam biologie moléculaire wala génomique surtout en matière de sibiru bariwu fi donc loolu fekkee dafa da nga ko bëgg yóbbu chaque région doo ci génn donc ñu ne donc ñun suñu machine yii mën nañu képp ku ñu ci indil wala lu ñu fa jëlee ci ci dëkk yooyu ñu indil ñu ko ñu wax ko mais bañ koy indi ba balaa ñu koy yóbbu dina wat ay semaine dina wat ay weer te sibir bi dañ ko war a mën faj ci heure bi wala fekkee élimination bi la pour éliminer doomu jàngoro bi ci ci waxtu wi wala ñaari waxtu yi wala ci bis bi war nañu mën a xam kan moo ko am ñu ñëw faj ko donc te lii lu waruñu ko yóbbu foofu ñu ne donc il faut ñu xalaat li nga xam ne. capacité yi machine yi am fii nii en euh, matière bi machines yi ma leen yu ma leen di woon après yu muy wax machine de génomique ou de biologie moléculaire comme les machines de PCR nan la ñu mën a yóbbee loolu te machine bi du dem te expertise bi ñu laaj du dem ñu xalaat donc ne dañuy defar lu tuuti lu am doole comme ñooñu noonu te mën a joxe information bu la ñële dox pour que lu doomu jàngoro tuuti tuuti tuuti ci yaram di ko gis te laajul. kenn ko nga xam ne dem na jàngi États-Unis wala jàngi na Université de Dakar wala jàngi na France wala jàngi na ci institution daal bu mag infirmier bi euh, technicien de laboratoire bi ñu formé buñ ko ko joxee war na ko mën a saytu utiliser ko te du am benn problème moom résultat bi nga xam ne ñun ñu nekk waa Dakar même possibilité loolu la ñu am loolu nag ñu am ay partenaires ñu ngi ci jàppale te ñoom gëm nañ ñu donc ci lañ lañ waxtaan ñoom ba juboo ba mel ni def étude bi niveau de Dakar au niveau Sénégal cest à ba gis ba créer machine boobu ak test ba nga xam ne boobu lépp luñ ci yaakaaroon sax jéeg gën a de li li ñu yaakaaroon li ñu suñu njoot parce que waxutuma la benn doomu sibur bi mais boo ko sibur boo ko tasee ñaar fukki yoon benn doomu jàng boo ko tasee ñaar fukki yoon test bi dina la ne kii mi ngi ci biir donc loolu mooy révolution test bi te non seulement mooy révolution parce que am na benn même capacité que machine yi yu ëpp doole laajul benn teg benn expertise benn xam-xam ci loolu te mën nañ ko yóbbu ci dëkk yi ci ci ñi gën a nekk ci en périphérie fi nga xam ne foofu la si sibiru gën a soxla foofu la ñuy def élimination mën nañ ko fa yóbbu moo tax nag depuis janvier bon ñëpp bu ñu yóbboo test bi bu ñu prouver loolu même Europe ñu confirmer effectivement test bi li ci doon seet yëpp kenn mënu ci wax dara test bu baax la lu nga xam ne la day aider Afrique day aider àdduna pour xeex doomu jàngoro donc loolu nag c'est l'occasion également de remercier ñëpp ñu ci yàpp compagnie yeeg au niveau du pays université ñoom jàpp nañ ci lu bëri parce que ñun universitaire lañu xam nga professeur d'université moom lépp looy def université lay jàppale daanteg bi ñu nekk aussi bi ñu jëlee songee liggéey boobu ñu ne waa direction bi li ñu mës a soxla à tout moment jàpp nañ ci fii lañ testé deret yi ci machine bi ñuy wax Illumigène bi Euh, machine yi nga tudd ñu ñuy gis ni ñuy wax ay machine PCR euh, réaction de polymérisation en chaîne yi nga xam ne ñoom seen capacité dafay permettre ñu détecter li ñuy wax ADN bi donc ci fii lañ ko manipuler bi ñu ko defee fii également fi lañ ko comparé résultats yi parce que dañoo jël résultat wu Lumigène bi ñu comparé ko résultat yeneen machines yi ba ñu gis ne lépp lu ñu machines yi la di jox yi nekk Ndakaaru ci laboratoire bu mag bi ni machine bi dana la ko jox te kii bi nga koy manipuler également xale ba nga xam ne la mu ngi fii soo ko ñëw di def formation moom lañ ko confier parce que dañ doon xool ndax am na expertise wala am expertise te ku fii soo ko ñu lay former xam ko utiliser experts yi ñoom en génomique biologie moléculaire ñu gis ne bu ñu xoolee résultat yi la te bu ñu koy yóbbee États-Unis également CDC Atlanta on a eu les mêmes résultats donc fépp lépp fii lañ ko defee au niveau de Dakar et ça aussi l'avantage euh, de la technique parce que Afrique lañ ko confirmer Sénégal lañ ko développé fa lañ ko fa lañ ko expérimenté ba ñu résultat ñu am fii lañ ko amee loolu mooy montre que rek aussi ñun africains yi war bu ñu gëmee suñu bopp mën nañoo dem parce que xarañte bi am na fi certes moyens yi ñoo manqué mais aussi bu ñu bu ñu bu ñu découragé donc tout se passe c'est lépp daal fii la xewee léegi euh, docteur mën nañu wax nii ndax comme test la est-ce que c'est préventif ou curatif. waaw euh, test bi dafay bokk ci ñuy wax diagnostic euh, booy wax diagnostic day laal fu ne de laal day traitement de laal prévention pourquoi parce que tey bala ngaa faj doomu aadama ñu ne da nga war a gis doomu jàngor bi du gis ko ci bët rek mais war nañ nga xam ne ci dara ji am na ci te test bi donc donc day dans le cadre curatif mooy day tax nit ki ñu mën ko faj mu jox ko médicament. donc foofu lay entrer donc day confirmer le palu et day permettre le traitement dans le cadre préventif aujourd'hui li may expliquer sànq ne leen test bi pour zone de préélimination yi surtout loolu tax ñu développé ko parce que l'objectif c'est pas en zone d'élimination l'objectif c'est pas réellement de traiter l'objectif c'est d'éliminer et donc quand l'objectif c'est d'éliminer et ce test participera day aider day day bokk ci stratégie yi ñu gars yi dugal foofu ci lutte contre le vecteur ci moustique bi defaraat dëkkuwaay yi test bi ñooñu bu ñu liggéey ba pare mais xam nga pour ñu ne am na sibiru amatu fi il faut ñu mën ko saytu donc test bi dalaan leen am na fi parasite amu fi kii donc day tax prévention day porte ci prévention stratégie prévention pour sibiru wala mën a développé wu wala mën a lawaat donc dafay vraiment moom dafa nekk li nga xam ne dafa am ñaari côté ñaari ñaari côté mooy paak ñaari boor. d' accord mhm. léegi côté couverture au niveau du Sénégal est ce que c'est-à-dire test bi ça a été assez vulgarisé euh, pour que hôpitaux yi ak ñi nekk dans le milieu rural ñëpp mën ci jot. waaw loolu beneen affaire beneen étape la xam nga ñu booy développé benn test première étape mooy ñu wane ne baax na ak lan mooy njëriñam loolu ñëpp d' accord nañ ci léegi njëriñam ak pouvoiram kenn daabateelu daabateelu weranteetu ko léegi. mais xam nga test boo gis dafa am moyen te dama wax sama njël ci njëlbeen ne leen Sénégal dafa am ay partenaires ñu koy jàppale. bu doon dëkk ba nga xam ne am na xaalis pays développé lañ am na lu ñu bëgg ci xaalis du ñu xaar kenn suñu nee test bi ñëw ne rek ne acca nañu fexe nu ñu ko amee mais Sénégal dañuy jàppale ci lu bari ñun dañuy liggéey Sénégal li ngi liggéey mais dafa am partenaire ñu koy jàppale donc loolu bu amee il faut que gars waxtaan ak partenaire parce que aussi dafa am benn am test bi dafa c'est sûr que gën a cher test yi fi nekk nii. ay micro-octets d'ailleurs donc te comme ku amul moyen de trop yi da ngay préférer utiliser lu fi nekk ba pare te li fi nekk micro-octets d'ailleurs mais ñu waxtaan pour que au moins dans les zones de prélimination ñu mën ko couvrir au moins ñu mën ko fa teg à la disposition donc loolu jun euh, dañoo bokk ci ñiy conseil programme Palu ak ministère dañ cee bokk ñun man mën naa wax ne sax du ma ne si programme Palu laa bokk parce que universitaire laa ak mais tey lépp lu ñuy def daf may engagé donc ñun suñu loolu mooy ñu conseiller programme PALU donc conseil boobu day jàll jàll na ba pare maintenant le ce qui mooy ñu waxtaan ak partenaires yi jëm a fexe pousse pour que ne leen bu ngeen bëggee vraiment léegi nag ñu éliminer paludisme bi au moins ci benn partie bi at yu ñu jëm il faut impérativement que ñu dem ci étude bu mel test yu mel nii pour que bu ñu ko mettre à disposition ñu leer nañu am nañu uti bi ñu manqué te loolu moo ñu manqué woon ci wàllu diagnostic de précision am nañ ko am naa yaakaar ne fii ak ay weer wala fii at ñuy ñëw loolu dañ ko mën am parce que test bi tey ñi am alal dëkk Europe bi ñoom nga xam dañu am lu nga paludisme d' importation ñoom jot nañ test bi. Mhm. te commencé nañ ko utiliser na depuis jan depuis février commencé nañ ko utiliser mais. ils ont les moyens xaaruñu kenn dimbali leen gis nañ ne baax na am na brevet am na certification ba nga xam Union européenne moo ko bind ñu gis pouvoir am ñoom ñu laaj ko loolu nag ñoom ak waa méridien américain ñoom ñoo koy gérer mais fii Afrique mooy demul noonu donc dañ ciy waxtaan ba xool parce que tey bu ñu koy remplacer ak test fii nekk xaalis bi du matale te test yi fekk am nañ doole pour jag prise en charge bi donc peut être li ñuy xool mooy nu ñu leen nu ñuy accompagner test yooyu ba ba bañ yegg fu ñu bëgg a jëm. léegi docteur ñu ñëwaat ci xeex sibiru xam nga bu ñu dee wax lutte contre le paludisme c'est-à-dire war nañoo xool d'abord insalubrité bi nu ñuy def ba jëlee ko fii cest à dafa laaj euh, pour que yenn euh, parties yu bëri. imprégné wu ci. Mhm. Euh, selon vous nan nga gisee niveau d' imprégnation bi parce que diggante service d' hygiène médecins yi diggante état bi ak yooyu ndax gis nga ne collaboration bi am na euh, pour ñu mën a éradiquer carrément sibiru bi fii ci Sénégal. waaw euh, j' avoue que xam nga loolu yëpp moom laa expliqué programme Pali moom mooy coordonné loolu yëpp man dama bokk ci acteurs yi nga xam ne réunion yu am ñu dañu ci invité ñu ñëw ñu joxe suñu xalaat document bu ñuy bind dañu joxe suñu xalaat oui collaboration am na te bu am na doole parce que ku ci nekk yaa ngi ci bay sa waar. man maa ngi ciy def keneen ci service d'hygiène ak ñeneen ñeneen ak ñeneen ñu ngi ci donc tous les partenaires ñii ñii ñii war a xeex si bu euh, doomu jàngoro bi comme parasite ñun ñu ngi ci ñii war a xeex yoo bi ñu ngi ci ñii war a protéger nit ñi bu ñu war a bañ am siburu ñu ngi ci parce que tey wàllu parasite bi ñuy xool nu mu du bindoo ak nu mu kii ñun ñu ngi ciy liggéey ba xam lu tax muy résistant lu tax muy indi problème et cetera pathogéniste bi ñu ngi koy xool ñii affaire yoo bi moo tax nga gis moustiquaires yi gars yi jóg nañ ci te ñooñu du waa programme Palier ñoo koy def dafay laaj ay service ñu bëri ñu jàpp ci bokkuma la sax kii mais communauté sax dañ koy jàpp donc ñoo ñu ngi ci pour aar nit ñi ci yooyu parce que moo tax ñu koy joxe au plan univers au euh, ci région yëpp pour que nit ñi bu buñ ci tëddee chaque jour sibiru du leen dal te loolu comme je dis day lor ñëpp donc il faut ñu nelaw ci buñ jëlee médicament aussi pour aar nit ñi Euh, pour faj ni ñi médicaments yi partenaires yi jàpp nañ ci ñu ngi koy joxe tests yi ñu ngi koy joxe gratuitement donc ñu ngi leen di aar yaa également même ñu nga xam ne ci yoon sud yi dañ leen di jox ay médicaments euh, pendant pendant saison de plus bi euh, bu nawet bi. pour xale yi du ñu prévenir CPS bi. war environnement également ñu ngi ci def lu ñu ci mën même si des na donc li des du du au niveau des acteurs du au niveau des partenaires mais c'est beaucoup plus une une meilleure implication de tout le monde. parce que communi communauté bi sax population bi ci lañ bokk parce que population bi sax il faut que maanaam li leen li ci bokkee mooy tey bu ñu la leen nelawal ci moustiquaire bi parce que ñun loolu rek lañ leen sant par exemple boo ci nelawulee boo amee sibiru mais sibiru bi day gën a law donc loolu si population bi ñu ngi ci mais ñu continuer di di ci di liggéey même au niveau des service hygiène ñu ngi xeex affaire pulvérisation ñu ngi ciy liggéey parce que bu gars yi def ay pulvérisation ay services hygiène ñooy dem ñooy jàppale ñu ngi liggéey autour du terrain nga gis résultat bi ñuy parce que résultat bi Sénégal am ci sibiru néew na dëkk yu ko am ci àdduna te foo dem ci Afrique ci àdduna programme PALU dañ koy remercier dañ koy féricité di leen nag ñaax ñu continuer parce que fi ñu teg seen tànk noonu la donc te te loolu aussi pour confirmer rek que ñëpp ñu war a jàpp. ñu ci jàpp ba tax Sénégal am ndam lii si si si wàllu xeex sibiru te on est persuadé que bu xeex bi continuer nii moyens yi ñu doubler ko parce que certes gars yaa ngi jàppale programme PALU mais dama gëm ne man des na. parce que man en tant que scientifique li ma bëgg a def lépp ci xeex bi amaguma defaguma ko comme ñeneen ak ñeneen donc foofu aussi dafa bokk li nga xam ne lu ñu ñëw aussi nañu xam ne dañu gën a yombal donc donc daal am nañu yaakaar que ne fii quelques années. sibiru bi mën nañu ko éliminer Sénégal. d'accord docteur nga nekk doomu sénégalais def invention bu mel ni macha allah euh, bëgg a jàppale euh, doomu Sénégal yi ci ñu xeex feebaru sibiru. noo gisee par exemple imprégnation état bi euh, ci ñi nga xamante ne mel nañu yow ngir mën a jàppale seen population. waaw d'abord man damay gërëm état bi parce que man comme li ma wax man pur produit état la parce que ki nga xam ne école publique nga jànge depuis primaire ba université. pratiquement mosuñoo fay dara donc ñun ñoo yoral njukkal état bi parce que état bi nag mooy population mooy yow mooy ñun ñëpp donc ñun ñoo war a xool nu ñu war a jàppale état c'est vrai que euh, nit ñi mën nañ xool ne léegi état lan la war defal mais man dama gëm ne man état mooy moo maa yore état li ma liggéey dama ko waroon liggéey pour jox état bi pour mettre à la disposition du pays loolu man mooy li nga taxoon ma jóg maintenant effectivement on peut dire que voilà état bi lan la def lan la ci kii nii pour man c'est pas important li am importance mooy li ma liggéey liggéeyalu ma ko gouvernement wala kii population sénégalaise africaine laa ko liggéeyal sama bopp laa ko liggéeyal donc loolu rek déjà pour man léegi nag état bu demee ba war ko mën a jël jox ko askan bi loolu aussi beneen affaire la te day gën a yokk ki mais daal en tout cas man pour le en ce qui me concerne liggéeyoon naa la ma waroon liggéey te xam naa ne dinaa participer activement tey ci xeex subiri comme ni mu ko doon def dama benn étape réglé naa ko damay continuer liggéey ñu ñu ànd ak état. d'accord ñu nekk ci semaine bi nga xamante ne nii mooy benn bis mooy bi ñuy màggal euh, xeex sibiru euh, lan mooy sa attente par rapport déjà euh, jéego yu ñu def am na solo mais fi mu ne lan ngeen di xalaat pour maanaam année bi ñuy jëm si nii pour jëm ci wàllu xeex sibiru bi. je pense que objectif programme Pali bu nga leen déglu temps ci ci ci ci média bi leer na mooy éliminer sibiru parce que loolu mooy objectif pour journée bii di ñëw ci te loolu nag je pense que jéego yi ñu ngi ci. test bii nii daf ciy permettre ci participer parce que bu demee ba mun a permettre maintenant am outil bu nga xam ne parce que doomu jàngoro pour nga mun ko fa il faut nga gis ko te loolu aujourd'hui Sénégal am na jëmtukaay boobu maintenant kañ lañ koy dugal loolu lañ ko xalaatal mais déjà le fait ñu utiliser moustiquaires yi gis nga temps am na campagne de distribution des mais loolu bu nit ñëpp tey kuy doomu Sénégal nelaw ci moustiquaire bi donc mu leer na ne yoo bi du transmettre si bur bi buñ ko ñëpp defee les treize millions de sénégalais def ko pendant l'année transmission bi day jeex te transmission bu jeexee parce que siburu nag yow bi koy joxe ñetti weer nga mën a dund yu demee noonu donc boo ko protégé wu pendant ay si six mois wala at yow boobu li mu yoroon ànd naa moom de dem na. loolu donc si je si aujourd'hui tout la population sénégalaise dormait sous moustiquaire et façon effective ci ngoon bu nekk un an doy na pour Sénégal éliminer paludisme dootul amati réservoir. donc loolu aussi yombul pour nit ñi comme information bi il faut que mu communique mu jàll mais loolu déjà objectif bi loolu la et surtout également même ñi ci nelawul ñi nga xam ne ñoo fàtte nelaw benn guddi par exemple parce que boo ci fàttee benn nelaw benn guddi sax mën na la jam nga am sibiru mais jumtukaay yu lay faj mu ngi fi te c'est gratuit donc et ça suppose également nit ki dem ci l'hôpital bi wala bu fekkee mënul dem l'hôpital bi zone yi nga xam ne nit ñi mënuñoo dem boobu ministère de la santé ak programme Palais dina leen yoon yónni ay nit ñu leen di jàppale donc stratégie yooyu ñu ak yeneen ak yeneen am na CPS yi ak yeneen ak yeneen donc li fi Sénégal teg fu mu toll nii bu ko ku ci nekk jëlee comme sa combat c'est pas pour rien que gars yi naan zéro Palais je ci ku ci nekk Sénégalais engagé woo ak ñun équipement yi ñu am pour diagnostiquer paludisme mooy képp ku ko am mën nañ ko diagnostiquer de façon certaine avec surtout yii zone nord bi nga xam ne presque jeex na mën nañ utiliser machine yi ñu tudd ñuy am nii comme test bi ñu créé pour ñu mu mu mu xool fépp fu mu amul ñaan amu fa pour confirmer ko ak li fi nekk nii mais je suis a que en un an sibiru mën nañ ko fi dindi mais cest dikk sa que ko donc ku ci nekk jàpp ne xeexam la ba ci ku nekk jàppee dina fi dañ et ben surtout li ma njëkk xalaat mooy sama mbokk banlieue bi ak ñi nekk ci dëkk taax yi ñooñu man ñoo laa njëkk xalaat parce que ñooñu vraiment ñooñu lay gën a lor donc na nekk affaire de tous et je pense que dinañ éliminer. communication bi jàll aussi bu baax a baax ci ñu ngi ci gars yi gis naa ne programme Pali ñu ngi communiquer bu baax ñun aussi luñ ci mën ñu ko cee def parce que ñun aussi nous sommes des acteurs yàlla may nañu de bu ñu waxee ñu dégluñu am nañu possibilité de communiquer donc dañ ci profite toujours aussi di jàppale programme bi ak ci ministère parce que communication aussi nit ñi xam li ma li lii bu ñu ko defee mu aaru te sibiru jeex ku ci nekk dinañ ci jàpp pour que loolu mu am. Euh, ñu ngi toll ci rubrique bi nga xamante ne moom la ñuy wax conseil du jour euh, mm. par rapport ak thème bi ak sa spécialité yenn conseil moo yi nga xamante ne ça vous tient à cœur que bëggoon ko jox téléspectateurs yi tey. la première chose mooy li ma wax sànq na ñëpp nelaw suba si kër parce que aussi euh, loolu daal mooy njëkk a aar képp ku gis ne am nga siburu wala muloo demal ci ci centre de santé bi poste de santé bi bu fekkee jege na la bu ñuul comme ñu ni am na dëkk yi nga xam musicaires yi nañ ci nelaw nañ ci tëdd ku ci yaakaar na am nga loolu dal demal ci poste de santé bi ñëpp aussi ku ci nekk fexe sa dëkkuwaay nga ah, sàmm ko ba tax li fi yow bi di mën a dundee du fa amati. d'accord d'accord professeur Ndiaye ñu bàyyi la nga tàggu téléspectateur yi. waa maa ngi remercier waa Mouridia TV télévision li ngeen ñëw ñu dalal leen donc di leen féliciter euh, ci initiative bi parce que effectivement jamono ji journée palu bi ñuy jëm. ku ci waxul mooy waxuloo vraiment actualité phare bi et comprendre ngeen ko man je ma leen di féliciter di leen encourager di remercier également fi ma toog fii sama équipe laboratoire bi ñi ci nekk ñëpp di remercier hôpital daan Dantec fi ma fi ma bokk université de Dakar fi ma sos fi nga xam ne aussi fa laay liggéey ak ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi ci liggéey waa programme PALI partenaires yi jàppale Sénégal ñëpp pour cibre bi mën a mën fee jeex jërëjëf. Euh, jërëjëf professeur Ndiaye ji leen jaajëfal yéen tamit téléspectateurs yi ñu ngi santaat bu baax ci honneur bi nga xamante ne ni professeur defal nañu ko euh, seq ak ñun waxtaan bi jëm ci li nga xamante ni moo di xeex sibiru ñu ngi leen di jaajëfal bu baax di leen dig daje beneen numéro conseil santé jërë ngeen jëf. leeral yi